asalaamaaleykum mbokku téléspectateur Equivox TV ñu am mbégte rek di jàkkaarloo ak yéen saa su nekk comme ni ngeen ko gisee nag tey ñu ngi fii ci yëmbal fi nga xam ne rek moo di garage bi nga xam ne euh, fii la Baye ñàkkee bakkanam Baye nag su ma ko waxee seen dina dem ci euh, jeune boobu nga xam ne bi manifestation yi amee dañ ko fekk ci buntu garage am daal di ko boom rek ba far dal di ñàkk bakkanam voilà bu ko defee rek dañuy dem ma dugg ci biir garage bi. waaw salaamaaleykum. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Habib Niang. yow uh, lan nga woon uh, ci uh, waay jiitu bi di Baye Cheikh. bon waay jiitu bi di Baye Cheikh rakk la si man doom la si man waaw parce que affaire bi tamit certes nu mu ñu diggee ñun ñëpp la dépassé ñëpp la dépassé parce que xamoon nga rey ko si di du tout parce que bu fekkoon ne sax booy dañoo manifester laa mun nañu wax mais booy manifester wul xam xëy na tamit dafa répondre parce que moom fu mu taxaw ñun ñoo fu njëkk a taxaw après mais comme ñu ay bi gars di ñëw. ñu déplacé wu ñu dugg si biir garage parce que violence la ñuy bañ ñun lépp lu ànd ak violence bugguñu ko parce que ay euh, ay nit lañ nit ñoo xamante ni suñ dawle rek la ñuy daan. booy bi nag certes ni mu demee daf ñu métti daf ñu métti parce que mais tamit aussi dañuy sant yàlla parce que nit bu reppul du dee xëy na fu mu taxaw noonu na su fekkoon ñun ñoo reppoon jour boobu ñoo njëkk dee mais yàlla moom moom lu tuddoon ne moom moo fiy jugee. anam bi mu demee neexuñu mais tamit dafa day gën si benn côté parce que jaam en quelque sorte da ngay da ngay da nga gëm yàlla quoi jaam bu gëmee yàlla rek day day day deex te am na taxawaay bu rafet am nañ ci moom yaakaar aussi parce que booy bi ni mu génnee àdduna am na kilifa yoo xam si ay borom daraja sax amuñu mbooloo bi mu am maturité bi mu am démb beneen affaire la si morgue ba si si si jàkka ja ba si cimetière yi xam nga loolu dafa rëy si ñun xanaa kay di naxarlu rek si contexte bu mu demee quoi loolu rek moo ñu métti. léegi yow ban seede ngay def ci ki nga xam ne moo di Baye Cheikh. Baye Cheikh bon nekkoon na xale bu nga xamante ni vraiment foo ko foo ko natt si baaxaayam rek romb na ko ñun li ñuy gën a métti dañuy dañ dul amati xale bu ñuy ruubee parce que bu ñu xëyee bu ñu xëyee ba nga xamante ni ndekki nañ ba pare teg suñu caayin xam ñun dañu nekk fi ensemble man menuisier la mais fii branche dafa bëri. mécanicien électricien radiateur xam ma ñëpp ngi fi mais ñun dañu bokku ndey bokk baay booy bi tey bu la fekkoon ngay liggéey sax tant que ruubewu la ah du am jaamu waaw lu may naxarlu rek mooy xale bi anam bi bu mu demee ko loolu rek moo mu métti. mais ñu gis ne euh, fi nga xam ne rek fa lañ ko boomee xaw a sori torop ak euh, fi nga xam ne moo di garage bi. nga yaakaar ne bokkul woon tamit ci manifestant yi ndax. non bu kenn mu ku xalaat ne manifestant la rek da ngay wax lu la neex rumeur yi bëri na. ku nekk yaa ngi wax la neex comprendre mais xale bi manifesté wul tey manifesté wul ëllëg déggoo li mu la dama ne la ñun ñoo waroon a dee parce que fi mu fi mu dee ñun ñoo taxaw woon mais dañ donc benn essan ñu ne man maanaam sama gars comme ñu ay responsable lañ dafa am lu ñu war na leen dellu si biir mun nañ taxaw foo sax ñu yaakaar ne dañuy manifester gars yi kay dañoo ñëw taxaw ba mu neex leen rek ñu duggaat seen oto waa ji xam nga armée mu neex rek teg si jët jëw booy bi dafa yomb mais euh, d' après autopsie bi lim génnee démb. Mhm. avant ñu koy denc def nañ autopsie bi. mais dañoo xamle ne li ko rey du fetel dafa am loo xam ne soit mu doon bant wala xeer ba xam dañ ko dóor ci bopp. non non non non moo ko rey fetel moo rey xale bi waaw xëy am na loo xamante ni gars yi dañu ci jéem a sëlëm mais xale bi fetal moo ko rey xam nga parce que gars dañ ko rey ba pare dem dañ ko rey ba pare dem taxawuñu te boobu toute la journée ñemewuñ fi teg seen tànk dañoo dem. ñu nag mënuñ si dara parce que kenn mënut a xeex buur buur dafa naqadee xeexal buur bu la tegee lu métti looy def mu rek mais bu fekkoon lii nit nit moo ñu ko def jour boobu bakkanam fii lay des mais nag ko buur la ndawal buur neexul a xeexal parce que ñun même suñu àll bu gàttee tamit xam nañ fu ñuy teg suñu tànk. Baye Cheikh ñun suñu dëkkandoo la rek man maa ngi fii dëkk tout pere te ñii tamit waa garage bi man damaa yàgg ak ñoom yàgg nañ luñ def moom ñaaw na moom ñaaw na metti na. du beneen yoonatee ba la ñuy génnee arme daal ñu koy génnee bañ ko di gaaw a génnee daal ndax moom it manifesté wul deful dara woor ba jant bi soo ñu faat la noon si dara metti na metti na moom metti na fi metti yam wax dëgg yàlla metti na. xale dafa wooroon bi dafa wooroon loolu da lañ wax ñu ne dafa wooroon ba jant bi soo taxaw fee di xaar magam di jëndi mburu waaw man démb ba ñu jógee si rob bi sax rob ma tëli ba fi may jaayee dama jooy sax metti na moom wax dëgg yàlla metti na. Baye Cheikh ci garage bi la nag man. Euh, atelier bee laa nekk sama atelier xarit la quoi metti na quoi ah waaye yëmbal yëpp bon waaye yëmbal yëpp ñu ngi am lu leen métti la sax yëmbal mee dépassé na yëmbal quoi dépassé na yëmbal quoi instant bi ñëpp la métti ba démb euh, képp koo xam ni vraiment romb nañ la di dem da ngay gis sax ay ful yoo xam ne dañuy topp mu nekk affaire boo xam ne affaire bu yéeme la quoi man am na yaakaar sax ñu bëri amuñu lii voilà parce que li mu am nii dafa rëy quoi mais yëpp bon ñun bëgguñu woon lii quoi bëgguñu ko nii bu ñu sañoon du demee nii. mais nag euh, nii la mënoon demee quoi parce que tamit moo euh, innocent la vraiment innocent la ku taxaw di seetaan ñu fekk la dóor la bal dafa metti quoi mu ñu ñu koy métti lu waaye yëmbal yëpp adduna yëpp quoi instant bi ñu koy métti lu bon di ko ñaanal rek yàlla xaare ko àjjana quoi parce que tamit euh, noon la mënoon demee quoi mais ñi nga xam ne ñoo fekkee rek ñoo mën a wax. waaw mais autopsie bi ñu ngi ñëw ñi ñi nga xam ne ñoo fekkee ñoom ñoo mën a wax quoi ñu bëri ñu ngi wax ñun ñu ngi dégg ay conversation yu bëri mais ñun ñi nga xam ne ñun ñoo taxaw ñu rey ko suñu kanam surtout man quoi man maa ngi taxaw suma kanam beneen gaayan bi mu ngi taxaw ñu bëri ñu ngi taxaw ci ginnaaw mais ñun ñi taxawoon ci kaw tali bi bi oto bi di romb di ko dóor ñun xam nañ ni bal moo ko dal ñun xam nañ ci dara quoi te même autiste bi ñoom xam nañ ni bal moo ko rey le reste c'est des faux problèmes gars wax rek quoi mais bal moo ko rey leneen la ñu mën a wax quoi mais bal moo ko rey ñun lépp loolu loolu seede lépp lépp booy bon ñëpp xam nañ ko bal moo ko rey. leneen ñi daal da ngeen moo loolu moo am sax loolu moo am quoi bon sérieusement parler loolu moo am quoi amul leneen ban rek moo ko rey. bon gouvernement bi li ñu koy wax rek mooy mu mu waxtaan ak euh, jàmm ñi ko vraiment mu waxtaan ak jàmm ñi tamit euh, mu gën a motiver nit ñi quoi ñun bu ñu sañoon li du am ñun ñi nga xam ni kenn manifesté wul sunu garage lañ nekk di liggéey kenn manifesté wul man bi booy di commencé sànni xeer man maa leen wax bu leen sànni xeer ba leen sànni xeer yi ngeen di man maa ko wax automatiquement bi ma wax loolu ci lañ ko dóor bal dafa yéeme quoi.